Thank you.

yàlla ñuy mënuñ chaque jour ak ñu bees nit ñi ñëpp kenn laa ci xam ne moom a ñaar <laughs> loolu léegi

ko barki salaatul fatiha Sénégal Sénégal mooy sunu góor Sénégal rek wala waxal bu